DSL Inco jàppoo seen liggéey ñoo leen di may seen émission les pros du métier. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler. Beaucoup travailler. Toujours travailler. Euh, mbokk yi seetaan ci ñu leen di nuyu di leen jaajëfal ci at ni leen ko waxee ci annonce bi rek am mbégte fas yéene ànd yéen ci suñ premier numéro les pros du métier maanaam les professionnels du métier ñi nga xam ne nii dañu xereñ ci seen métier di ci def liggéey bu am solo ñoom lañ fas yéene dalal tey ji nag suñ premier numéro nu ngi am mbégte dalal daayira bi nga xam ne ni dafa lëkkale mboolem menuisier yi nekk ci dëkk bu tedd bi di tubaa xam naa tur bi ki nga xam ne mooy Serigne Khadim Diop ci dikk ñu fas yéene waxtaane nag ay tomb yu am solo duñ def lu dut euh, jox ki nga xam ne ni moo di Serigne Khadim Diop euh, kaddu gi su ko defee mu nuyoo ñu daal di dikk ci tomb bu njëkk bi daayira bi lan moo tax ngeen sos ko ci ndigalu kan ngeen ko soxe sose ak kañ ngeen ko sos Serigne Khadim kon ñu jox la kaddu gi ngeen nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli mbokki taalibe ñoo ngi di ziar lu bari di leen baal xaq baax di leen baal di ñaan suñu borom boole ñu jéggal. jërëjëf euh, Serigne Khadim Diop nuyoo yaatu na te matale na kon mbokk yi di leen fàttali rek ne euh, ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu menuiserie nekk fii ci Touba ñu ngi leen fekk ci benn ci seen siège fi fii ci Touba Xayra ci usine xorom waaye ni leen ko waxee rek ni ngeen ko seetaanee ci annonce bi itam euh, émission bu am solo bi ñu fas yéene ko amal fukki fan ak juróom yu nekk. di ci dalal nag mbooleem borom métier yi ñu ngi ci ànd ak suñuy sponsor di waa INCO kon sëñ Xaadim dañuy dugg ci waxtaan wi laaj ba ci njëkk mooy daayira bi tur bi naka la kañ ngeen ko sos ak lan moo tax ngeen sos ko. daayira bi mi ngi tudd Majmahun Nurayni fii Fawaaidi Daarayni e, tur boobu tamit di boo xam ne daa bàyyikoon ci la doomi Xaadimu Mustafaa di sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbacké ñaan suñu borom yokk ay leeram bar Cheikh Mouhamadi tas ñu barkeeram e, moo ñu ko tudde woon comme ku ne xam ne seen activité am danañ yittewoo lu mel ni ay menuisier yoo xam ne dañ koy defal ay xadd ak dugg liggéey ay lal yoo xamante ni tout temps nekk daara dañ cee dañ cee dañ cee dañ koy war jëfandikoo moom amaat ñu nekkaan ci nag doon liggéey loolu euh, saa bu yàlla dogalee mu am yitte ci lu mel noonu ñu àndandoo ñun dem fa mel ni xel kon ak yeneen dikk yi nga xam ne ay daaraam la dem di ko xaddal ak di defal lu mel noonu. liggéey bi it wóor su wóor euh, di ànd booloo gi jëmmi yàlla ak jëmmi Serigne Touba. ndax day mel ni eh, Touba mbaak ñi fi nekk ñëpp ñi ngi dox ci loolu te ñu ci dox lépp kenn gënuñu cee yell ci loolu ndax macha allah bu dee ay teraanga ay xéewal eh, ku ne xam ne ne sëñ bi fàttuñu ci loolu dara kon nag ndegam ñëpp a ngi def kon ñun yàlla nañ ci loola eh, te it gis nañ ñi koy def ñëpp it borom bopp lañ boroomi xalaat lañ te bu nee borom bopp kan la ouvre la ñuy xalaat kon naka moom na ñu war nañu taxaw noonu xool lu ñu boole ñu jéem a ànd liggéeyal Sëriñ Tuubaa waaye jàppalante ci suñu biir jàppalante boo xamante ni jàppalante murid lay doon li ci desaatin mooy at mu jot bu ko yàlla dogalee dinañ siyaare ji xalif bi e, fu mu mën a nekk ñu fekk fa siyaare ko ba ni ñu waxee yoon nii ñu ngi war am siyaar incha allah rabbi le treize e, janvier tombeek altine incha allahu rabbi ñu war cee def siyaare e, général loolu nga xamante ni section yëpp ñooy àndandoo ñu daje dem ci kanam xalif bi jébbal ko suñu addiye sàkku ñaan ci moom da demaat ba déwén ak jàmm di di sant mbooloo mi nga xamante ñoom la ñuy wooy te duñ ñëw te ñu wóolu ñu confiance ñu trop ba lu ñu def ñoom ñu rafet lu ko euh, bàyyi ñu xel bu baax a baax maa ngi leen di sant ñoom it ci seen confiance bi na am euh, di leen ci gërëm di leen ci ñaan bu baax waaye di leen dalal seen xale te xam ne nañu santaat bu baax te doole am confiance te xam ne ñu ñu nekk ci seen kanam ñoo ngi leen di guddil ñoo ngi leen bëccëgal te it lu ñu def lu ne ñoo ngi leen ciy xalaat ñu am ci résultant yu yu ko yu ko seen jot loolu daal moo doon kàddu gi may jégalu baax également yow la sant bu baax ci sa euh, possibilité bi nga ñu defal ak lii nga ñu defal di la ñaanal itam sa site bi suñu borom faaw ah, solal ko lool ba li nga ko bëgg ci ay mesures ak ay eh, lépp suñu borom defal la ko ni nga ko bëgg ci barke Xaadim sol li la jégalu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Xaadim Diop yaakaar naa ne kàddu yi leer na nañ ci daayira bu am solo boobu nga xam ne ni ni mu ko waxee muy daayira bi lëkkale ñiy yëngu ci wàllu yi te nekk ci dëkk bu tedd bi di Touba. xam naa beneen yoon dinañ gën a yaatal ndax liñ fas yéene mooy ñoom ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci daayira bi ku nekk yor sa atelier ñu dem ci ku nekk atelier am ak moom ay waxtaan yoo xam ne nii waxtaan yu gën a yaatu lay doon waaye ngir wéyal ak yéen ba tey ci jataay bi nga xam ne nii mooy seen les produit du métier ngeen koy ànd ak L24 ni leen ko waxee woon ñoo ngi toog ak kenn ci ñoom itam di Serigne Moussa taal liggéey bi nga xam ne nii moo di liggéeyu menuiserie yi ñu gis ne liggéey la boo xam ne nii bu yaatu la ci Sénégal bu yaatu la ci Touba liggéey bi ni muy doxee fi mu ne nii wàllum jafe-jafe nemmeeku nañ ko ci corps de métier yëpp yi nga xam ne ni am na ci àdduna rawatina Sénégal mais jafe-jafe yi seetlu nañ ne léeg-léeg bu dee ñaari xeetu jafe-jafe benn bi mu ngi bàyyeekoo ci ñi nga xam ne nii ñooy liggéey bi biir métier bi di ci boole lu ci bokkut yeneen yi mu ngi bàyyeekoo léeg-léeg ci jàppale yi leen war a jàppale wala jumtukaay yi bu fekkan da ñuy euh, expliqué wala da ñuy defal benn sara wala benn jàngat ci jafe-jafe yooyu diggante jafe-jafe bi nga xam ne nii ñi ci biir corps de métier bi ñoo koy indi loolu ñu ci wax ak jafe-jafe yi nga xam ne ni xëy na euh, moyens yi wala jàppale gi nga xam ne ni léeg lekk kilifa yi dinañ leen ko jàppale moo des lan nga ñuy leeral foofu. comme ni nga ko jafe-jafe ni na lool waaye nag bi ci jiitu mooy comme ni ma ko waxoon léegi rek ñu gën a gën a te it ñu gën a fonkaat métier mi jox ko jox ko gëddam ndax nit ki bala ngaa balañ laa jàppale da nga njëkk jàppale sa bopp. waaw nga xam li ngay def mooy lan liggéey bi nga jox ko àqam li nga sàmmati client bi nga di ko def boobaa jafe-jafe man mën a mën a néew waaye boo nekkee sa xure fas yéene loo loo engagé def defe ko na la ngir wut ci koom barit ala kuleel jafe-jafe jafe-jafe day ñëw waaw léegi li ci daal mooy ñu jox ko xam te it bañ fee nekk di di ragal dara ci maanaam mbiru importation tem donte mi ñu laal waaw jëruñu koy ragal waaw ndax ñun nañ ci yokk suñu xam-xam rek nañ fexe ñun concurrence waa ndax ñoom comme li ñuy def ak nu mën a mel ñun li ñu def a gën waaw kon ñoom dañoo war a ñun fexe di def lu set lu baax lu dëppook jamono loolu rek mooy xeex bi waaye waaye du beneen xeex waaw loolu la ba côté boobu loolu lañ ci mën a bu ñu jël déggaate itam ci beneen jafe-jafe bi nga xam ne nii tey bu ñu ko doon wax muy wàllum importation bi ndax gis nañ ne euh, sonal na menuisier yi wala gis nañ ne yaatu na kon mel na ni delloo nga askan wi ñu gën a gëm seen bopp gën a def consommation locale waaye nag day fekk itam ngeen di def production yoo xamante ni day am qualité. loolu itam feeñaat na ci mbir yi kon yaakaar naa ne dinañ ko gën a yaatal incha allah bis buñ la fekk see sa place comme li yëfu mbooloo la yëfu daayira duñ ci mën a yaatu euh, kon dañ lay joxaat kàddu gi rek nga tàggatoo ñu door a daral suñu dernier invité di leen fàttali rek ne yéen a ngi ànd ak L24 TV seen premier numéro les produits métiers di ci ànd ak suñu sponsor officiel di waa DSL Inco xam naa jombul ñu bëri ci yéen xam nañ ko di jaay ay matériels yu am solo kon dañ lay jox sa kàddu yu mujj ñu door a daral sëñ Ibrahima Badiane Euh, sëñ Moussa leen ñaanal baax a wax yàlla te occasion bi nga ñu may ngir ñu mën a si siiwal liggéey bi ñoo liggéey ñoo leen si jaajëfal baax a baax jërëjëf Serigne Moussa Tall xam naa bala ñoo recevoir suñu troisième et dernier invité ci émission bi dañuy bàyyi waa régie ñu tegal ñu publicité bi après ñu door a continuer il faut travailler DSL jàppoo sellal liggéey ngir jàppale waa Touba ak li ko wër ci seenub liggéey ginnaaw bi ñu leen ubbilee benn showroom bu mag maanaam bërëb bu yànj yeesalaat na ko ci outillage ak matériaux de construction lépp loo leen soxla am na fi bokk na ci yooyu coupeur ci batterie visseuse perceuse meuleuse marteau piqueur scie électrique groupe électrogène bu mag wala bu ndaw poste à souder moto pompe machine coupante bois fer aluminium vitre wala carreau transpalettes ay brouettes ay gants ay casques wala ay tenues de travail ay pièces auto ay gonfleurs ventilateur avec batterie ak yeneen jumtukaay yoo xam ne nii lépp jàpp ni na fii ci DSL INCO ku fi ñëw da nga fi gis sa bopp moo xam ngay maçon menuisier métallique aluminium wala menuisier de bois carreleur peintre mécanicien tôlier baykat nappkat sàmmkat chauffeur ndaw ñi fi nekk seen itte leen rekk la taxaw leen ci seeni bëgg-bëgg lépp loo leen fi soxla dana leen ko yombal ci ay njëg yu xéewale ci DSLN Co nekk ci tubaa Daaru Manaan ci yoon wi bàyyi ko ancien garage jëm si ci jumaay Touba mën ngeen a jokkoo ak ñoom nag ci 78 195 18 50 wala 70 508 32 95 faut travailler. ñu ngi toog ak suñu euh, dernier invité ci jataay bi muy Serigne Ibrahima Badiane xam naa ne tey moom cere ji man la ko bàyyil waaye incha allah nangu nañ ko kon sëñ Ibrahima ginnaaw biñ la dalalee nuyu la ci turu mboolem menuisier yi nga xam ne ni ñoom nga seqal liggéey bu am solo bi xam naa laaj bi ñu lay laaj ginnaaw boo nuyoo mooy daayira bi mu sosoog léegi yan jéego lan def fii ci Touba ak itam. lan lañ fas yéene jëmmal ci Touba loo xam ne nii képp ku ko gis rek dina xam ne lii kat daayira menuisier yi nekk ci Touba ñoo ko naal fii ci dëkk bu tedd bi. Euh, asalaamaaleykum sëñ Ablaye ñu ngi lay ziar di ziar mbokk internet yi nga xam ne ñi nga ñuy seetaan fii ci L24 TV. di leen jaajëfal bu baax euh, di leen jéggul itam ci jotaay bi ak temps bu manqué bi euh, comme ndigal la loo xam ne nii ci Serigne Saliou lañ ko jële woon yàlla nañ ko soon borom fayal ñu daan ko liggéeyal ci daar yi comme ni ko président waxee ci départ bi euh, waaye lim ci jublu woon mooy mbooloo mi mën a booloo di liggéey Serigne Touba waaye mbooloo mi mën a booloo di jariñ seen bopp mu mel ni loolu nag kon dafay am mm, lu muy laaj yu bari lu mel ni social euh, ndax àdduna mook ay jafe-jafe ñoo ànd te mbooloo lu mu gën a bari di gën a mën a liggéey Serigne Touba waaye luñ mën a gën a bari di gën a mën a jariñ seen bopp Euh, ba tax na am na ñoo xam ne ci biir mbooloo mi ci sociale boobu ci lañ leen di dimbali ama maar dañoo am ay gaañu gaañu wala ay jafe-jafe ay yooyu bari na ñoo xam ne nii buñ seetaanee video bi danañ mën a seere li ñu wax euh, bari na ci lool ñoo xam ne fekk nañ leen ci hôpital bi ñoo xam ne yóbbu nañ leen ci hôpital bi ñoo xam ni fekk nañ leen seen biir kër ba tax na am na ay réalisation yuñ def itam am na ay projet ndax bëgg nañ lu mel ni kër goo xam ne menuisier yi ñoo koy moom bëgg nañ lu mel ni centre boo xam ne menuisier yi ñoo koy moom bëgg nañ di jokkoo ñu mel ni autorité yi euh, yëf yi gën a yaatu ndax àdduna moog loolu ñoo ànd ndax dafay am loo xam ne ñoom dañ ko yor waaye ñun ñoo tax ñu yor ko te ñun buñ ko jëlul kane na ko jël di ko jariñoo léegi nag bëgg nañ euh, mën a kii ak autorité yi bu baax a baax mën a jaxasoo ak ñoom Euh, bëgg nañu itam ñi nga xam ne dañuy ne ci biir mbooloo mi am jafe-jafe lu mel ni seen diggante ak seen i client ak lu mën a doon bañ dem ci yoon ñu mën leen a fekk fañ nekk dimbali leen ba jafe-jafe yee woyof tooy ci ñoom la ca toppitam itam euh, wut nañ benn oto boo xam ne nii sociale bi moo ko génne te oto boobu li muy jariñ mooy menuisier yi toujours ñu ngi génn ay bagages di ko livrer te bu ñu mësaa di génne di livrer dañuy woo benn auto transport jox ko seen xaalis kooko jël def ci poosam léegi nag au lieu nga jël auto transport ko def ci kiyam mais nga jël auto daayira bi la nga la ngay joxe fee ñu man la ko wàññil ci daayira bi ba pare mu duggaat ci biir daayira bi loolu yaakaar naa ni euh, euh, lu am solo la ba ca toppitam xam naa du génn daanaka soññee ndax soññee moom du doy ndax nit ñi moom buñ demoon ba pat mille personnes it taxul taxul mu doy ndax liggéey sëriñ Touba moom lu mbooloo mi gën a yaatu rek ñu gën a mën a liggéey sëriñ Touba bureau bi ñu ngi liggéeyal toujours lu mbooloo mi jariñoo lu défendre mbooloo mi ak lu mbooloo mi jariñoo ak toujours loo xam ne dana développé daayira bi ak toujours loo xam ne dana yéege suñuy jéego bu baax a baax foofu daal mooy fi ñu toll wasalaamaaleykum wa rahmatullah am nañ mbégte itam dalal ci euh, suñ premier numéro daayira euh, menuisier yi nekk tubaa ñuy waajal nag bis bu am solo di ci soññ ñëpp muy euh, bisub ziar ñu jàpp ko le 13 janvier 2020. il faut travailler. Euh, kon mbokk yi ngir boucler suñu premier numéro les pros du métier dañ ci ànd ak suñuy euh, partenaire de suñuy sponsor officiel di waa DSL Inco soo leen gisee fi ñu taxaw ak décor bi ñu ngi fii nag ci bërëb bi nekk ci tubaa Daaru naan xam ngeen ne tey ji ñu ngi dalaloon kuréel gi lëkkale menuisier yi nekk ci Touba ñoom nag xam nga ne boolem outil wala jumtukaay bi ñu soxla am na fi nga xam ne nii moo DSL Inco loolu moo tax tey ñu dalal leen ngir nag ñëw euh, def ak ñoom benn présentation ci outils yi nga xam ne nii menuisier yi dañ koy soxla ñoo ngi fii ci siège bi fekk fi personnel bi macha allah waaye li jiitu dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne nii moo di euh, maam Adama Gadiaga nekk li nga xam ne moo di gérante bi suñ paree door a ànd ak euh, sañ Diouf bëgg cere mu présenté menuisier yi li nga xam ne ni nag moo di ay matériels yu fi am solo yu dëgër garanti yomb ngeen mën ci ànd ak DSL INCO. salaamaaleykum sëñ Ablaye Faye. maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa Touba yëpp di à travers DSL ñun ñu ngi fi DS euh, DSL Inco indil waa Touba tout ce qui est marque Inco euh, amaana ouvrier yëpp am nañ ci seen wàll rawatina menuisier yi nga xamante ni ñoom lañ ñoom ngeen dalal tey ci seen émission bi di les pôles du métier muy une initiative boo xamante ne DSL Inco mu ngi leen koy mu ngi koy rafetlu bu baax comme dafa nekkal ouvrier yi. donc euh, da leen di gunge si émission boobu incha allah fa yéene si ànd ak yéen comme ni nga ko waxee tous les quinze jours ngeen am ouvrier ba leen dalal donc euh, comme menuisier ngeen dalal tey am nañ ci seen wàll ci INCO am nañ fi aussi ay produits yi nga xamante ne euh, ñoom lañ ko jagleel nañ leen bàyyi ak suñu benn agent après mu wan leen produit nga xamante ne lépp li nga xamante ne menuisier dañ koy utiliser ñun am nañ ko fii ba ci mujjee ñëw mooy serrure yi serrure ak ay euh, canon am nañ ko ak ay poignée yoo xamante ne yu bees tàkk la moom mu mujjee ñëw te yaakaar naa ne loolu jàngoro la woon ci ci ci ouvrier rawatina fii ci Touba ñu ne ko doon jooylu léegi indi nañ leen ko dañ leen di bàyyi ak suñu agent yi ñu wax le euh, wan leen yi nga xamante ni ñoom lañ ci mujjee ñëw pour yi di leen wax ne DCL INCO mu ngi fi pour ñëpp euh, ubbil na leen ay portam te yaakaar naa yombal ouvrier yi liggéeyam moo ñu indi fii. avant maa ngi leen di nuyu di kontaan seen présence fii ci INCO tout d'abord di leen xamal ni tey tey menuisier yi lépp lu xeetoo ci wàllu serrure muy kano muy poignée yu ñu doon wër tey instant yi INCO yombal na leen ko par exemple dafa am ay poignée chromée dorée argentée yoo xam ne moom soo ko tëjee ci bunt moom macha allah instant moom menuisier moom kontaan nañu ci kii ci poignée yeeg mooy serrure yi nga xam ne dañ ko doon xaar lu yàgg yàgg ba bés ni ki tey mu ñëw. léegi soo ñëwee fii ci monise yi mën nañ leen wax ne ñoom dañuy soxla raskool li ñu naan marteau à dafa am bu mag ak bu ndaw ak marteau yi ak marteau yi marteau yi en fer la du. du kii do arnal yi mhm. bon am na aussi tenaille mhm. ay tenaille numéro huit numéro neuf am na pince yi am na pince à gaz yi mhm. am na ciseau lépp lu menuisier soxla daal soo ñëwee fii macha allah tey DSL INCO jàppale nag képp kuy ouvrier muy maçon muy menuisier bi tey moom menuisier bi kontaan na ci DSL INCO parce que lu xeetoog ay clé à ay si lépp loo xam ne menuisier daal da koy utiliser soo ñëwee fii ci DSL INCO masala da nga ko fii fekk. kon daal DSL ko ubbi na ay buntam ngir menuisier yi sa dernier mot. sama dernier mot mooy yéen ouvrier yi surtout menuisier yi ubbi nañ leen bunt yi fii ci INCO Daaru Marnaan ci Touba di leen xamal ne outil bi ngeen soxla te amul woon su ngeen ñëwee si DSL INCO da ngeen ko fi fekk. waaw kontaan nañ si yéen itam jërëjëf euh, kon jërëjëf mbokki internet yi bàyyi xel L24 TV ci réew mi wala bitim réew seen premier numéro les pros du métier maanaam les professionnels di métier ñu ngi ko doon boucler fii ci siège yu euh, suñu partenaire suñu euh, sponsor officiel di DSL Inco nekk ci Touba Darou Manane gis ngeen matériel yu am solo yi nga xam ne nii am na fi à la disposition de tous les ouvriers particulièrement ñin daloon tey muy menuisier yi Euh, ci euh, présentation bi nga xam ne nii monsieur Diop monsieur Diouf defal nañu ko gis ngeen ay matériels yu exceptionnels yoo xam ne nii xëy na jafe woon na fii indil nañ leen ko xëy na da ngeen ko doon wuti feneen indil nañ leen ko kon euh, ni ko maam Adama Gadiaga waxee moom mi nga xam ne moo di gérante bi fii ubbil na ay buntam mbooleem ñi nga xam ne nii ay ouvrier lañ kon waa Touba ak li ko wër képp ko soxla jumtukaay bu mën a doon ñëwal fii rawatina nag yéen ñi nga xam ne nii tey yéen lañ dalaloon. muy menuisier yi di leen jox dox numéro ak euh, L24 ci les produits métiers jërë ngeen jëf à la prochaine. jàppoo INCO moo leen doon may seen émission les produits métiers. il n'y a pas de secret. il faut travailler. beaucoup travailler. toujours travailler.